kon fu mu la déggee Ama Baldé moom bokkatu si course bi. instant nii nii nii nii wax dëgg yàlla ko moom. bokkul si course bi waaw. ñu bokk si course bi. waaw yaay lim lima. Lac de Guiers de moom si course bi. bëgg na la de <laughs> nee na jiw daf la bëgg troisième fois. waaw bokk si. <laughs> la de Guiers bokk nii nii non. nii nii yow yow mi di ko wax sax xam loolu du actualité. ah mais si Lac de Guiers dafa toog si moo daan Boy Niang. non la moo daan Eumeu Sène. mais bëri nañ deux fois. li ma koy wax te yàgg naa ko wax tamit. Mhm. làmb ji du Modou Balla. Mhm. Bombardier Eumeu Lac de Guiers Gris Bordeaux non. Mhm. làmb ji mu ubbeeku. loolu laa gëm te man sama objectif. loolu la woon. mooy bëri ama seen. avant maa bëri ama seen sax dama loolu mooy yàlla joxe kon. sama sama objectif mooy. ñu bëreek moom boo nee booy kii parce que maa ay morom lañ quoi. waaw waaw waaw kenn ay deux tax na waaye bu yàlla may mu jël couronne bi damay bëreeg samay morom. làmb ji ubbeeku parce que warul am. Mm-hmm. ñii bëri ay ñaari yoon ñi bëree ay ñetti yoon amul sens quoi. léegi kon Lac de Guiers 2 moom écarté d'office. léegi su ma si limalee Gris Bordeaux bi nga xam ne moo waroon bañ a Ama Baldé moom tamit bëri nañ deux fois. waaw moom tamit c'est écarté d'office. bëri nañ deux fois. oui. troisième dootul safe. non sens. amatul sens. waaw. ak Tapha Tine ñoom ñooy bëri foofu ku fa daan. waaw Bombardier déjà mu ngi ci mu ci mu ngi ci mu ngi ci. combat ñoom waaw ci combat di leen ñaaral rek. ñoom it ñu am jàmm daal. mais daal comme li ma la am na lu nga xam ni. du man maay maay maay maay acteur bi. waaw xool ñu may bëreel. mais daal. keneen biram am na yoo xam ne promoteur bi soxlaa moom la ñuy am na yu ci nekk mu ngi ci discuter bu mm-hmm. fa comme li ma la bu sottee ñëpp dañ ko yëkk Balla Gaye de mu ngi si na combat am na combat 30 juillet non non moom léegi kenn moo des ah Boy Niang 2 bi daan Balla Gaye de moom mu ngi si course waaye comme li ma la rek am nga mm-hmm. tey yàlla dafa dogal am fu ñu toll ci làmb ji mm-hmm. maanaam sës nañ faaw dellu ginnaaw rek nga mënaat. da mm-hmm. ngay amatul ay duma. Mm-hmm. xam nga damay xeeb kii wala xeeb non dellu ginnaaw. Mm-hmm. daanaka koy bëreel may chance lay doon. pas may chance sax mérite la nga xam na mais daal. ci ay